nuxayikum bi taxiyatil islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki na bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen ziyaar leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm salaam sutura àddina ak àlaxira yàlla na yàlla dool ñu ko defal mbokk mi ngi noonu nuyu ñëpp ziyaara ñëpp ñaanal mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér lool nuyu baax njiitu réew mi nuyu borom kër gi ñaanal ñëpp gërëm bu baax a baax sëriñ Jili Ñang mu baax mi fi bàyyi ko léegi mbokk mi ngi noonu am na nañu mbégte gërëm bu baax a baax a baax ñaanal sëriñ Babacar Sy Ibn Alaaji Mansour xalif général de Tidiane nuyu ko ziyaara ko ndokeel ko ñaanal ko mu yàgg fi lool ak njabootu Seex Sidil Haaji Maalik gépp nuyu baax a baax sëriñ euh, Muntaxa Mbàkke njabootu Cheikhil Khadim Chérif Abdoulaye Thiaw Laay njabootu Sidna Limaamu Laay gépp nuyu baax a baax Ceerno Mahamad Bachir Tall xalif Omariyen sëriñ Cheikh Tidiane Niass ca Medina Baye sëriñ Cheikh Tidiane Niass ca Léona Niassène nuyu sëriñ Cheikh Tidiane Seck ca Ceneba euh, euh, nuy baax a baax a baax euh, mboolem xalif généraux yëpp rek ziyaara ñëpp rek sëriñ Muniru Njigéen euh, ca Thiès euh, sëriñ Bekaay Kunta ca sëriñ Bekaay Kunta ca Njaasaan nuyu ko moom itam sëriñ Cheikh Tidiane Ba ca dina Gounass ñoom ñëpp nu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax sëñ Abdourahmane ca Amdoulaye am nañu mbégte émission baa ngoog siira ngoog nu waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñaan borom bi subhanahu wa taala sunu cofeel yal na ko yàlla gën a dolli moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu mbëggeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli sunu topp ci moom ndax kat yàlla nee na yaa ayyuha allazina amanu atiu llaaha wa atiu rasula wa ul amri minkum borom bi subhanahu wa dafa wax ni yéen jullit ñi na ngeen topp borom bi subhanahu wa waaye bu ngeen yem ci topp yàlla na ngeen topp yàlla waaye topp rasulullahi bu ngeen ci yem de waaye wa ulu amri minkum na ngeen topp euh, bu ngeen toppee yàlla topp sidina Muhammad ngeen topp ulu amri ñu ni ulu amri nag hum al ulamaa wal umaraau mooy euh, borom xam-xam yi ak buur yi waaw maanaam borom xam-xam yi ci jamono bii nga ni ak euh, ak président yi ak kilifa yi réew mi waaw wa ulu amri minkum bu ngeen toppee nag ngeen njëkk topp nag borom yi xam-xam yi déglu leen ngir ngeen mën a jaar xam kanay borom bi subhanahu wa taala xam kanay yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la yàlla wax ndax nag daraja yàllaa koy jox doomu aadama moo tax bi ne am na ñu si naaw mar ko waxoon ni anziloon naasa manazilahum am ñu wax ne Seydina xam a ko wax ne nit ñi nañu leen jox seeni wàccuwaay mooy cër bu nit am na ko ko jox waaw nit da koy jox cër bi mu am waaye ñaanal ñi dem ñi dem makkatal mukaram yal na yàlla defal leen xajjan mabruur ñi fi desandi di waaj pour dem yàlla na ñëpp dem ñoom itam yàlla defal ñu ñun ñëpp xajjan mabruur wa saayan mashkuur wa zanban maxfuur bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu boobu nag yonentu la boo xam ni ah yonentu yi njëkk yi ko jiitu def nañ avant premier ngir moom yuñ allah àla adama nga xam ni alayhi salaatu wasalaam mooy bàyyu ñëpp moom aadama yàlla njëkk koo bind ba noppi yónni ko aadama moomu jàllam googu mu fi njëkk walla yuñ ci àlla noox wala yuñ ci àlla siis wala yuñ ci àlla daawuda mbaa suleymaan mbaa yuñ ci àlla ibrahima mbaa yuñ ci àlla muusee mbaa sax nga gàttal na yuñ ci àlla isa bërki ñoom ñëpp jàll gi nu jàll avant premier la rek ngir feeñu rasulullah ki war a jàmbaar ja sa baxsul anbiya li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami ñu laaj samaam Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu mu ni bind gi yàlla bind mindeef yi dégg nga wa xalqul axlaaq yi bindug mindeef yi ñu yaa si mu ni baxsul anbiya ak yónnig yuruntu yi nee na muqaddimatun avant premier la rek lu ñu jiitale la rek waaye li zuhurihi ñeel feeñu rasulullahi samaam ni faalam xamal loolu waaw wala tanami euh, bul sikki sàkka waaw xamal ni daal avant premier la mooy jiitu gi ko fi ñoom maam Adama jiitu ak yeneen prophètes yi ko jiitu ñoom ñëpp avant premier la ngir feeñu rasulullah yi wax naa la ni la ah président bu départ jëm ci këru diine yi benn kër gu mu mën a dem mbaa sax jëmul benn këru diine moom président daa génn rek ne maa ngi dem mbuur mbaa wala daa génn rek ne maa ngi dem Thiès gii moom président am na motaar yu jàll waaw waaw nan kaa rapide wàcc leen tali bi njega njaay yi wàcc leen tali bi ah, ah particulier yi pousse leen gaaw pousse leen. am na yeneen oto yuy jàll ñu jékki-jékki oto ba ne ci digg ba yeneen ka ay ay motar dar ko nu xam ni ki jiite réew mi mooy jàll moo tax demuk Adama demuk Siis demuk Suleymaan demuk Daawuda demuk Ibrahima demuk Muusa demuk Zulkifli demuk Ilyasaa demuk Daaniyal demuk Yaxya ba Isa barki démb ñoom ñëpp avant premier lanu waaye ngir feeñu rasulullah ki waaw kon kii dara jaam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla rek moo ko xam darajaam yàllaa ko xam yàllaa ko xam yàllaa ko xam moo ko bañoon boo fa demee xam ni waa ji tëraayam bii ndam kese la aha tëraayam ndam kese la buxdul asaafili lam yu naqis fadlahu bal zaadahum bayna al wara tafdila mu ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buxdul nee na bañu wayu suufe ñi waaw bañu wayu suufe xam nga ku suufe ku suufe bu la bañee du la wàññi dara waaw ku suufee nag mooy koo xam ne nanguwul dogalu yàlla waaw nit boo fekkee nanguwuloo dogalu yàlla yàlla am lu mu dogal ci nit nga lànk bañ koo nangu ne fi di dem di sëriñ si di liggéeyak ak di yàq der ak di wax lu bon ak ak di ko fexeel ak ak di ko pentiir ak di ko dóor yooyu yëpp da ngaa suufee ñoom mooy ñu suufee ñi waaw mën a mu ni bugdul asafili bañu wayu suufee ñi lam yu naqis du wàññi euh, euh, fadlahum daraj darajaam ci gaa yi moom yonent bi alayhi salatu wasalaam xanaa kay bal zaadahum baynal wara tafdila da koy dolli ci diggante mbindii fi ak ngëneel saa yu nu xëyee rek di bëgg rasulullah ki waaw yi di ñëw nit do mbooloo may sottiku benn par benn waaw waaw gaa yi di ñëw waaw am na ñu ko bañoon ba ko toppee ba ba vérifié ko moom boo ko toppee vérifié boo ko vérifié rek topp ko moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waaw boo ko toppee vérifié ko waaw ndax inna siraja iza abista bi dawihi yazdaadu fihi dawuhu takmila sallallahu alayhi wa sallam mu ni sidina Muhammad inna siraaja naka lamp ñu ne ah iza abista ndéem yaa nga cay fo bi dawihi ci leeraayam yazdaadu fihi dawuhu takmila da koy doolik leer gu mat sëkk ca fo foo nga ngay fo ci lamp ba waaw lamp boo cay fo leeraayu lamp ba day gën a jolli waaw leeraayu lamp ba di gën a leer noonu la leerug Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di gën a yëkkatiku waaw leer ga di gën a jolli waaw sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaw mara sama moo doon ni min kulli wasfin hamidin haada afala tafdilin rajaul baraya yowma musdahami xoola góor gi rek lu ne wax na ko rasulullah xoola foofu rek dafa jëli fiil ja waaw min kulli wasfin hamidin da ngay jëli fiil ji ne xaada làq na moo la ji maa ni ko làq mu ni rajaul baraya yaakaar mi ngi fi lu mu làq mu ni min kulli wasfin bépp melo bépp melo melo boo xam ni bu ko nit amee sant ca yàlla bépp melo xamidin melo bu nu sant xaada làq na ca moom rasulullahi afala tafdil afala tafdil nag bu la ko arab waxee mooy la gën ca la gën afala tafdil xam nga boo ne axlaa axla arma waaw yooyu yëpp ay afala tafdil la waaw nga ne axlaa gën a neex xam nga am na lu neex mais am na lu ko gën a neex ala am na lu kawe moo nga ne gën a kawe waaw na lu cher waaye axla moo gën a cher waaw gën a yëkkatiku anma arma yooyu yëpp ay afaala tafdil la afaala tafdil nag lu baax lu mu ñëw da koy gën a baaxal waaye bu fekkee lu bon la afaala tafdil da koy gën a bonal waaye nee na Sidina Muhammad afaala tafdil la gën ca la gën la gën ca la gën yàlla jox na ko rasulullah moo si ndax foofu la yam mu yamu ca de rajaul baraya mooy yaakaari mbindee fi kañ la koy doon munu yow ma musdaxami bisu rac-rac looba bisu rac-rac nit ñi naan tar mel ni yuun mel ni lëppaa lëpp ñoom doomu aadama yi waaw ñëpp tiit ñëppay tiit moom doo ngay jug ànd ak sa goom alxaariatu mal xaaria wa ma adraka mal xaariatu yowma yakunu naasu kal farashi lmabsuufi wa takunu aljibalu kal aydi almanfuusi fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya rasul ne ko déedéet mu ne ko naarul xamiya yàlla nee na alxaariatu aji fëgg la moom bésu pénc ma alxaariatu lan mooy fëgg sax wa ma daraaka xamalagu ma la yow rasulillahi ma alxaariatu lan mooy fëgg rasul ne ko déedéet xaraa mooy firi fëgg na yaqrau dana fëgg mooy fiilu mudaariu bi xaariun ismu faa'il bi mooy aji fëgg alxaariatu aji fëgg la moom bésu pénc mal xaari'a lan mooy fëgg sax wa ma daraaka xamalagu ma la yow rasulillahi mal xaariatu lan mooy fëgg na njol màkk ne ko déedéet mu ne ko yawma yakunu naasu kal farashi lmabsuufi wa takunu ljibaalu kal ayhni lmanfuusi allahu akbar bis la boo xam ne doomu aadama yi dañuy mel ni ku muy bu tawee ku muy bu tawee ba euh, ndox mi ko di ngeen koy gis nga taal lamp yooyu di nekk ci lamp yi naan tar tar tar waaw gis nga bi ngi noonu allahu akbar noonu la doomu aadama yi jërëjëf Seydi gis nga mi ngi noonu noonu la doomu aadama yi mel waaye yow ma yakunu naasu kal faraasil mabsuusi wa takunu al jibaalu kal ihni al manfuusi montagne toj suuf sa xar na ku jël say jëf fa amaa man thaqulat mawaaziinuhu fa huwa fi iishatin raadiya ku jël say jëf nag yóbbu ca balance ba jëf yu baax yi gën a diis bon yi nga commencé dund nag dund gu dootul malaaka attention ah ah gars yi douanier bi bët bi ñëw na malaaka yi amul munoo munoo munoo ne xel amul burle ba bërë ci leen la nga def lépp nañ la ko génneel bu ñu la indilee loo xam ne yaa ko defoon nga fay nekk di weddi dañu la indil film bi rek xam xàmmee nga sa bopp ah waaw ah, kii de mën a xàmmee nga yëre bi nga moomul yaa ko jënd ah kii de mana a waaw waaw moo tax ñu ni euh, euh, vidéo weddi woo la tudd waaw mi ngi noonu ñu tegal lépp yàlla nee na kooku nag fa um euh, fa huwa fi ishatin radiya mi ngi ci dund dund gu yàlla gërëm dund gu nëtëx waaye yàlla nee na euh, ku ñu jël say say jëf yóbbu ca balance ba jëf yu bon yi gën a diis yu baax yi yàlla nañ ci yàlla musal jëf yu bon yi gën a diis yu baax yi kooku fa umuhu tàppuwaayam tappuwaayam tappuwaay boo ko xamul mooy këram fa muy dëkki hëwiya mooy safara buñ naan hëwiya yàlla ni sayyidina Muhammad wa ma adraka xamalaguma la yow rasulillahi maa hiya lan mooy hëwiya rasul ne ko déedéet mu ne ko naarul xaamiya yàlla ci yàlla musal safara la soo xam ni ah, Pape Fall yàlla na yàlla musal ci boobu safara mais boo ko mosoon buñ la ko ñamalee ah ah bëggoo ko ah kon boo boo jàmm yàlla de tey def lu baax safara la soo xam ni buñ la sa ñuus ne ne la fa yuus ci biir safara sax jëmm ji nga yoroon ci àddina nga xam ne ku la dompat nga yëg ko boobu jëmm nga yor moom yàgg ba sa xel dem ci di nga sol dàll boobu safara bul xalaat ni di nga sol yére amul ku lay dimbali kon mbokk yi laay dal xel mooy ñu nekk ci ndigalal borom bi subhanahu wa taala xam ne àddina bi yàggul am na ñu fi nekkoon yor ay milliards tey ñu ngi biir suuf am na ñoo xam ni ñoo doon buur ni ba muy am na ñoo xam ne ñoo waxoon na ñ yilif àddina am na ñoo xam ne ñoo waxoon na ñoo yilif mi am na ñoo xam ne euh, ñoo daan buur di bummi di def lu leen neex tey ñu ngi biir suuf ñoom nag alal dañu doon yor denc ko ci banque ba mbaa ñu denc ko du leen la lan moo leen di jariñ mooy seen jëf yu baax alal dañu yoroon daan ci def lu baax ñàkk ñu alal daan jëf lu baax nekk ci ndigalal borom bi subhanahu wa taala bala nga xam ni bëgg Sayyidina Muhammad te wóor mbaa topp sunna Seydina Muhammad te wóor ñu rof la biir bàmmeel bàmmeel nag nga xam ne xalaatuñu ko xalaatuñu ko de moom daal bala ngaa xalaat bàmmeel rek am ku dugg am ku dee ci koñ bi nga ànd ca suul ga ngay door a xalaat bàmmeel nga xëy amul ba ngoon di xalaat bàmmeel bu dee bu fekkee réew mi téeméer la ñu ñaara koy xalaat Sénégal gaa yi xalaatuñu bàmmeel xalaatuñu buñ leen suulee wan leen ginnaaw Pape Fall maa gis koo xam ni dañ koo teg ci jaak rombale ko fa mu doon dawalee otoom fa mu doon tiitaroo rasuwul tippiluwul maa ko gis xam nga nu ñu defa gaa yi buntu këram lañ ko rombale di sikar rasuwul tippiluwul ci kees lañ ko dugal de kees laa wax de maa ko gis rasuwul tippiluwul yu xam nga fu ñu ko yóbbu fa ñuy denc ci ya fa la ñu ko yóbbu gas ba mu xoot ne ko yomb ci biir say dooma lay jiital nag war la ginnaaw boo dee jeune mbaa ngay xale bu jaamuwul borom bi subhanahu wa taala ñi la gën a jegee lañ suul rokkas la rokkas la te mbaa yëg nga ne léegi xale yi dañuy rokkas léegi mag ñi rok suuratuñu mag ñi dañuy ñëw ne xale yi suul leen mag ñu ñi amatuñu doole jàpp ay jàkk suulunu xale yay jàpp jàkk yi xale yooyu dugg ci biir pax mi jël la yéen ñi jigéen ñi maa ngi leen di wax yéen du ngeen dem armée la du ngeen fekkee ni suulee xam nga naka laa gars yi buñ la buñ demee ba foofa jàkk ji fële lañ koy teg bu fekkee ci kees nga ne dañuy génne kees gi la ñu la sàngee woon nañ koy dindi perkaal juróom-ñaar yooyu dagg la ñu la takkee koy tekki dañ koy tekki parce que malaaka yi war a ñëw dañ la war a yëkkati tegal la dañ laa war a yëkkati toogal la wax ak yow dañ koy dagg xam nga nu ñuy defa dañ lay suul léegi jeunes yi dañuy rokkas billahi buñ lay suul allahu akbar dañ lay rokkas jàlla suuf nga jege naa yow suuf sa nday joor suuf la sa càmmañ suuf la suuf ngay tëdd suuf ngay jege naa yow suuf ci sa kaw bu fekkuloo nekkoo ci lu baax bu fekkoon da ngaa nekk ci caaxaan te li ma gën a naqari mooy xale yu jigéen ñi ci biir réew mi di naan sàngara ba bërki dee bu gis naa xale bu jigéen xale la mu ngi naan sàngara butéel da ko yor dafa yor butéel bi waaw te rasulaay nee na ndeyu ñaaw teef mooy sàngara umul xabaa'is nee na mooy ñaaw teef yi ndey li yi bon ya gën a bon ya bon a bon a bon a bon ba gën a bon bon bonaatoo nee na mooy sàngara u toxu moom waxuma ko yàmbaa sax lu koy tox ñoom ñoom xale yi tux yàmba cigarette moom dépassé nanu ko léegi nu ngi fóon ñàkk bàyyi xel yàlla soo waxee ñu giñ ci Cheikh Seydil Hadji Malick boo waxee ñu giñ ci Serigne Touba giñ ci Seydina Limaamu giñ ci Cheikh Sadbu giñ ci Boukounta giñ ci Cheikh nga ñëkk nga ñàkk yëg ñooñu mën a limal dañ nañ ci yow te ëllëg yoo leen gis ah Serigne Fallou Mbacké mu baax moomu day dem départ nekk ci otoom am ko ko arrêté mu tax sëñ Fallou chauffeur bi taxawal foo jëm mu ne ko ci yoon bi mu ko yéegal waa ji yéeg ñu dem ba dëkk mu wàcc ne ko Mbàkke jërëjëf ñu nag ñu ñu nag yow nii ba aljana rek sëñ Fallou nekko naa la fekk ci yoon wi de naa la fekke ci yoon wi waaw na yoon wi mooy la la Cheikhul Khadim mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala tegu ci njub yaa ngi ci yoon wi boo mooyee loolu nag di giñal sëriñ bi amul soxlawul loolu ngay taalibi Seydil Hadji Malick la Maodo wax nga xam ne Seydil Hadji Malick moom nee na du li ma julli laa yaakaar amul benn jëf bu ma yaakaar ëllëg lu dul bëgg rasulullah ki su ma wóoroon ni man Seydil Hadji Malick yàlla nangul na ma benn salaatal fatihi allahu akbar su ma xoolal kooku mooy vérifier ndax moom benn salaatal fatihi yàlla nangul na ko ko yow nga def ni yaa moom aljanna yow nga defe ni yaa moom aljanna yow nga defe ni biir bàmmeel yaa fay dogal loola neex malaaka bi day soxlawul 1000 francs soxlawul neexal xam nga lu mu soxla te du tëb miir du tëb fenêtre moom mënukul mawti ci biir kër gi lay dugg lenn la soxla mooy ruu te dina ko yóbbu ndax yàlla ni ah ku jël say jëf ëllëg yowmal xiyaam ñu yóbbu ca balance ba te bala maa bëgg dee nga naan man sama xol daa rafet doo du ma julli du ma woor damay def lu ma neex naan man sama xol dafa rafet ëllëg yàlla xol lay sama xol bi lay jëkk at moo kan moo gën a rafet xol jëpp ko du rasulullah daan taxaw di julli ba tànk yi néew yi ndékkiwul bis ba añul reerul du mën a taxaw ngir jaamu yàlla day jël morso takk teg ci ay xeer jël morso ba takk ca biir ba ndax xeer yi mën koo may kattan pour mu mën a taxaw jaamu yàlla wa akadat zuhduhu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala al ishami waaye lor nag du jalgati ci ko ñu ñoŋal yàllaa ko ñoŋal moom yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal sayyidatuna Aïcha ni ma ko waxee ni ko waaw xanaa du bërki démb la la yàlla ni topp la dara yàlla nee na baal na la bàkkaar yi nga yore yàlla nee na baal na la bàkkaar yi fi nekk yàlla nee na baal na la bàkkaar yi bëgg ñëw ngay julli nii ba sa tànk yi néew wi doo mën a taxaw xam nga lu ko Seydina Muhammad tontu dafa ne ko afala akuna abdan shakura waaw Aïcha ndax nekkuma jaam buy delloo yàlla jukkal ndax ma jaam buy delloo yàlla njukkal moom yonent bi alayhi kooku nga xam moo gën lu yàlla bind xol bu rafet bi nga am kooku la ko gën a rafet le te lu yàlla bind mooma mu nekkul nag moom nit du am du am àjjana du am àllaaxira du am bu nekkuloo nag moom doone xew bay xew la su bon borom daal daan wax koo xam ne bu nekkuloo nag moom doone xew bay xew ndax jarul bàyyi xel ndax kooku jaru topp sunnaam yonent bi nag moo ni man ahya sunnati faqad ahabani ku dundal sama sunna kooku ma bëgg too man ahabani kaana maay fil janna ku ma bëgg man rasulullah yi maak yow mbagg nga mbagg baal janam waaye bëgg ko nag doon bëgg naa ko nii rek ah bëgg naa ko te doo jëfee sunnaam wa waajibun taatul haadi mahabatuhu kada tibaau allati alladi yaati min al umami la jàmbaar ja Seydil Xaaji Maalik wax nee na war na cib jullit ci nga topp sunna si rasulullah yi war la lu war la taatul haadi ci nga topp aji jub ja te mooy rasulullah yi topp sunnaam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nag nee na ko waxal sa gaañu ne bu nu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni wax leen ni bu nu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulillahi bu ko defee nag yuhbibkumullah waaw waaw loolu nag ci grammaire arab charte la jawaab yàlla ne ndax bëgg ngeen ma bëgg leen ñu ne ko ah kay yàlla yàlla ne su ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko bëgg leen ko bëgg leen ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu tax moon alxaaj Mouhamadul Mansour radiallahu anhu euh, ne wazub wasal dumuan gaziratan wala taltafit bilxubbi lil gayri faniya allahu akbar waaw soo tëtëtëtët ma ngi ko ma euh, bayit bii ma wax alxaaj Mansour euh, Pape mi ngi ko def 1944 toll ci 44 ans ci waxtu wi la woon yor-yoru altine bii raw du rasulullahi ci ajam gu barkeel googu 44 ca 44 ajam goobu waaw mu ni wasub na nga ruy ruy xam ruy xubban ngir bëgg rasulullah wasal na nga yolal di sotti du mu am ay rongañ xasiratan ya di wayi mari bil xub bi ngir bëgg rasulullah del jooy ngir yonent bi bu kenn souffrir naqar boo mën a am xalaat rasulullah bul souffrir bul souffrir ay mbëggeel ak sama teree nelaw ak mu sa ki nga bëgganteel bàyyi la nga ne fi di joo lool lépp jaru ko xam nga lu mu doon mbëggal yonent bi bul souffrir bu kenn souffrir loo mbëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam waaw wasub xubban waaw wasal dumuan say ronkoñ bu ko kenn génne ko dul yonent bi wasal dumu an gaziratan yéen ñi way bari del jooy ngir rasulullahi góor gi ne wala taltafit bul gersu lil xayri ñeel keneen bul gersu bul gersu keneen bil xubbi ci mbëggeel faane yaa mbir moom ngay aja jeex takk ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh borom bi jaaw ba rafet bi yoroon xilaafa seex 40 ans 6 fukki fan ak juróom zéro fët moom dani xubbu taaha lil musnibiina najaatun wa amaanun min hawli yowmi liqaayi góor gi nee taaha bëgg taaha tamay rasulullah alaaji abdu najaatun mucc la mucc la lil musnibiina ñeel ñiy def ay rëcc rëcc bàkkaar waaw wa amaanun mu ni mu ni bëgg sayyidina Muhammad kóolute la sécurité la kañ mu min hawli yow mi liqaay ci bisu daje ci tànge ba bis ma papa yi daw doom doom daw baay jabar daw jëkkër jëkkër daw jabar xarit daw moroomu xaritam ndax yaakaar nga ni boo gisee sa baay ñu jël say àq jox ko nga dem safara boo gisee sa yaay ñu jël say àq jox ko nga dem safara doom baay bu gisee doomam def ni ameel na ko àq ndayit def ni ameel na àq doom xarit daw xaritam jabarak ak jëkkër dawante ñëppay tiit kenn ay dekki ànd ak sa goom mooy bàyyi Fatima ak Umu Kulsum Roqeeg Zeynabu bàyyi Abdullahi Ibrahima Xaasim soppay Seydil Xaaji Malik yaakaar yaakaari borom Touba maami Cheikh na Cheikh Saad Bou soppay Cheikh al Islam maami Chérif Ousseynou Laay maami Chérif euh, Abdoulaye Thiaw Laay Mouhamadou Rasulullahi ah gaa yi ndaxit it nag nga dem ba garage fekk fa oto ba paan ngay jël say bagaas aj xam nga doo dem dem nag boo ko bëggee def da ngay kalambitu ci waa ji da ngay kalambitu ci moom koo xam ne tax ma nee waxoon na ko ni ko day fu nu kulul sa tatafaana fi xubbihi <laughs> keroog ba mu euh, gàddaayam nga ba mu jógee Màkka dem Medine jaar raawul sawri fa ñetti fan ne ko gana ngi koo xam ni wa kullul baraaya mindeef yëpp tatafaanaa jeex nañ takk fi xubbi ci bëggan gi tamay rasulullahi nga xam ni mala mala yi dañ koo sopp njool Màkka toog nag saxaaba yi di waxtaan ak ñoom ñaari wa ñaari gileem romb xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ko ba noppi daal di sujjóot ñaari gileem laa wax de ay gileem sujjóotal yonent bi continuer seen voie seen yoon saxaaba yi ne ko ñi ay mala lanu bàyyil ñu lay sujootal yaa rasulallahi sayyidina Muhammad ni leen su ma doon digal nit muy sujootal moroomu nitam kon soxna laay digal mu sujootal moroom këram waajaa ngoog kookoo bari doole moo fa àggee xam ne benn VIP doo nga am mooy rasulullahi waajaa nga Médine saaxibil xawdil mawrudi saaxibil maqaamal mahmud mbokk mi ngi noonu siira ngoog sunu cofeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ila alhuda ila alhuda jamonoy tabaski gi ñu nekk ànd leen ak seen portail religieux seen diine portail booy abonné wu ngir mën a télécharger lépp loo soxla ci sa diine ak sa téléphone àndal ak sa ngëm-ngëm ba fu la neex ak ñaar fukki dërëm kese bés bu nekk abonné wul yónneel diine D I I N E ci 22 jot ci sa téléphone ay doa ay xaddis ak i aaye alxuraanul karim di nga mën a télécharger it sonnerie yi la neex méngoo ak sa diine ak sa tarixa xasaayit ay Taysiir sonori xaadar sonori laayeen wala zikr ñaseen portail religieux seen diine yamul foofu mën nga it sa télécharger image wala logo bi la neex def ko fond d'écran ci sa smartphone bu leen wàcc yónnee leen diine D I I N E ci 22 600. ak portail religieux seen diine màggal leen feetuk tabaski gi ni ngeen ko bëggee abonné wul mën a jot ci portail bi ngay mën a télécharger yi lay gunge ci sa diine foo dem yóbbaale sa ngëm-ngëm ci sa téléphone spécial tabaski ak seen diine yónneel diine D-I-I-N-E ci 22 jot ci sa téléphone ay dowa ay xadis ba ci aaye alxuraanul karim lépp ci ñaar fukki dërëm kese bés bu nekk te nag du loolu rek bu la neexee it mën nga télécharger sonnerie bi la neex dëppoo ak sa tarixa moo xam xasaayid la taysiir zikr ña seen xaadar wala laayeen ak seen portail religieux seen diine mën nga ci am image bi nga bëgg télécharger ko def ko fond d'écran ci sa smartphone bul ko waaj benn yoon yónneel diine D I I N E ci 22 600 D I I N E ci 22 600 tabaski jàmm. Powered by Digital Virgo. ak portail religieux seen diine màggal leen feetuk tabaski gi ni ngeen ko bëggee abonné wul mën a jot ci portail bi ngay mën a télécharger yii lay gunge ci sa diine foo dem yóbbaale sa ngëm-ngëm ci sa téléphone spécial tabaski ak seen diine. yónneel diine d i i n e ci 22 jot ci sa téléphone ay dowa ay xadis ba ci aayay alxuraanul karim lépp ci ñaar fukki dërëm kese bés bu nekk te nag du loolu rek bu la neexee it mën nga télécharger sonnerie bi la neex dëppoo ak sa tarixa moo xam xasaayid la taysiir zikr ña seen xaadar wala laayeen ak seen portail religieux seen diine mën nga ci am image bi nga bëgg télécharger ko def ko fond d'écran ci sa smartphone bul ko waaj benn yoon yónneel diine D I I N E ci 22 600 D I I N E ci 22 600 tabaski jàmm. Powered by Digital Virgo. te ñaanal mbooleem euh, kilifa yi réew mi yëpp yàlla defal leen jàmm am nañu mbégte ñaanal soppay Seydina Muhammad yëpp yàlla defar sunu mbiri àddina ñaan yàlla it mu defar sunu mbiri alaxira sunu cofeel ci na Muhammad yàlla na ko yàlla gën a dolli euh, mi ngi noonu euh, léegi ubbi nañu nañ ma ubbi ligne bi Cheikh nañ ma ubbi ligne bi bu ko defee incha allahu taala Euh, gaa yi daal maa leen wax ne nañ may indil sama téléspectateurs yi safoo émission bi di siira man tamit may maye waaw dama bëgg di maye fa tabaarakallaahu gis ngeen xaa damay maye ay juróomi junni maye ay tisi euh, ak lan ak euh, ah, ay soble soble diwlin ñoom ñëpp incha allahu taala pariru or mi ngi noonu émission bu mag bii di siira ñaanal soppi si jina Muhammad yëpp ndax tabaski bii nuy waajal ñëpp soxla nanu ko Euh, gërëm bu baax a baax a baax waa sant yàlla boutique ñoom nga xam ni ñoo joxe euh, tisi yi ak télévision Futur Média ànd ci ak ñoom ci bu liggéey bu mag boobu le euh, seen numéro mooy 77 906 28 95 waa sant yàlla boutique ñoom itam ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salatu wasalaam Cheikh Ibrahima Cheikh Abdourahman Ndaw Cheikh Abdourahman Ndaw Al Karim soppay Seydina boobu boobule nuyu ko ziyaara ko nuyu ay soxnaam waaye nuyu nag waa kaarang yëpp ñaanal leen yal na yàlla njabootam gën a foofu euh, ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral nuyu lycée bu mag boobu ñu ko tuddee mooy lycée si Abdourahmane Ndaw al Karim ca kaarang ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ku fa jàngee yal na yàlla barkeel sa jàng ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam seex euh, bi nu ngi lay nuyu nu ngi nuyu euh, soxna Yande bu baax ndokkeel ko moom itam ziar ko nuyu soxna Binet ñaanal ko moom itam euh, yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu salaam euh, kon euh, ñu ubbi ligne bi bu ko defee rek ah ubbi nañu ligne bi ma xaar waxuma sax am na ñoo xam ne ñoom dañuy maye waaye dañoo bëgg yonent bi dañuy participer rek ngir wane seen cofeel ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu tamit ñu ngi leen di xaar Euh, ne woon na gars yi euh, man bu ma mayee wul sax gars yi daañu woote ndax seen cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag dama bëgg di maye dama bëgg di joxe na ngeen may indil fii xaalis ak tisi ñi nga xam ni soxla nanu ko ñoom itam bu nu wootee rek nu may leen salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo. allo. si nu ngi lay nuyu. maa ngi lay dégg bisimilah tur bi naka la. Fatou Fall maaleykum salaam. bismillah baal wàññil wàññil bi wàññil télé bi waaw. allo salaam. wàññil télé bi waaw. wàññi naa ko. waa kay tur bi naka la allo. allo bi naka la. alhamdulilah ah. wàññil télé bi soxna si wala nga pousse. wàññi naa bi. waa kay tur bi naka la. Fat Fall. Fat Fall. waaw. waa kay Fall fooy wootee nii. maa ngi wootee Asulem. Asulem ah. waa kay Fall bismillah bismillah. Pape ñaa jërëjëf jërëjëf Fall. rafet rafetlu émission bi. jërëjëf. ñu ngi kontaan trop ci yow. alhamdulilah alhamdulilah. ndax Seydina Mohamed mi ngay waxtaane. sallallahu alayhi wa sallam. waa pare dama la sopp ndax taalibe euh, kii bi nga doon. ndeysaan jërëjëf taalibe Cheikh jërëjëf jërëjëf Fall. waa kër ñëpp la sopp macha allah. day saan kontaan naa. maa la gën a kontaan. léegi Fatou balaa léegi may naa la juróomi junni. allo ma ni may naa la juróomi junni. allo. allo Fatou yaa may dégg. maa lay dégg baax waaw. ma ne may naa la juróomi junni. waaw su ma dañu bëggoon nga may leen basin nag. Ah, waaw mba basin am na de ah, waaw ak basin. waaw léegi may naa la juróomi daal moom la ñu may naa la juróomi junni ak basin dégg nga. ah jërëjëf aan yal na yàlla fay la. waaw kay waaw kay. yàlla yokk xéwal gi. waaw bul coupé bul njëla ci suuf ah. d'accord. mi ngi noonu gërëm soppay Seydina Mouhamed yëpp ñaanal leen yal yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ngeen mayal ma ko ah am na keneen maa ngi xaar téléspectateur yi safo télévision Futurs média nuyu ñaanal ñëpp nuyu ñëpp ziyaara ñëpp euh, ñaanal ñu dem baytil al haram yal nañu àgg ci jàmm yal na yàlla defal leen xajjan mabruur wa sa'yan mashkuur wa danban maxfuur ñi demagul nekk ci yoon bi di waaj ñoom itam yal na yàlla yóbbu ñëpp ci jàmm waa al nabiyu voyage waa siira voyage ñoom itam ña ngay waaj incha allahu taala pour euh, dem ba baytil al haram euh, incha allahu taala boo ko defee ñaan yàlla sunu pèlerin yi nga xam ne ñoom itam nu ngi waaj yaa euh, ñaan ñaan yàlla yóbbu ñu ñëpp ci jàmm àgg ci jàmm def aj gu yàlla nangu lu ñu fa ñaan yàlla nangu ko ñu ñibbisiwaat ci jàmm réew mi yàlla gën koo yokk yàlla gën a barkeel réew mi ñu nekk ci jafe-jafe yàlla yàlla teggi ko ñu feebar yàlla saafara leen ñaanal ñu ne ci prison yi yàlla na ñëpp génn yàlla na réew mi am jàmm ñëpp am jàmm Euh, ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam fitna gi réew mi di euh, jànkonteel yàlla nañ ci gaaw génn coono yi nit ñi di teel am na ñoo xam ne sonn nañu yàlla na ñëpp am jàmm ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ko ne ci ligne bi maa ngi leen di xaar mi ngi noonu euh, ngeen woote ci 88 628 22 22 88 628 72 86 88 628 04 05 moo ngi noonu ngeen ñëw wala 88 628 99 90 88 628 99 80 mooy numéro yi nga xam ni incha allahu taala bu ngeen ci benn bu ngeen ci woote rek daa ngeen ñu jot wane seen mbégte seen euh, cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ak gërëm bu baax a baax Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib ca Washington nuy waa ITFA ñaanal waa ITFA yëpp yëpp yëpp euh, ndokkeel ko ci gàmmu Memphis bi mu jugee moom sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib euh, gërëm ko ci ñaanal waa ITFA yal na yàlla yokk leen dëgëral ña ngay waajal na convention bu mag ba nga xam ni état yi ne Amérique yëpp nooy waajal at mu jot sëriñ bi weer wu ne dana def ñeenti gàmmu ci benn ay dëkk euh, samedi bu jot aljuma xadara lay doon samedi sëriñ bi ñu waxtaane Sidina Mouhamed dimanche ñu waxtaane Cheikh Seydil Hadji Malick Euh, bu ko defee aljuma bu waa it faa xadara samedi bi nu waxtaane rasulullahi dimanche nu waxtaane Seydil Hadji Malick sëriñ bi ñaanal taalibi yëpp bu ko defee euh, di ko def par état salaamaaleykum allo salaamaaleykum salaamaaleykum dem naa allo. salaamaaleykum. aleykum salaam asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Alaaji Pape An. waaw kooku. maa ngi lay nuyu man la demuma de eh demuma. yow la kan. man na El Hadj Ablaye Samb. El Hadj Ablaye Samb. waaw. waa kay Samb Samb nu ngi lay nuyu. na nga def. fooy wootee nii. maa ngi wootee fii si Dagana. Dagana waa kay Samb Samb. nanga def. ñu ngi sant bu baax kay Samb naka waa Dagana. ñu ngi si jàmm leen nuyu bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Samb. di bëggee waxtaan wi bu baax. di teelu jërëjëf jërëjëf di ñaan yàlla guddal sa fan bu baax a baax a baax. amin amin Samb jullit yëpp kontaan nañ si yow. alhamdulilah alhamdulilah. soppi Mouhamed kontaan nañ si yow. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Samb. bul coupé bul coupé bala coupé ah. bul coupé may naa la juróomi junni. waaw jërëjëf booy. jërëjëf xaaral du ma de. waaw may naa la saaku soble. yaa ngi dégg. waaw. may naa la tisi boo xam ni di nga ko mën a ñëw julli ci. waaw man kay xanaa la ma soree nam kay jotee moomu jaaxal. ah da nga yónnee wala kon wala wala ma yónnee la xaalis bi rek. yónnee ma xaalis bi rek. wa waaw bul ko ba yónnee la ko. waaw jërëjëf. kon may nañ la juróomi junni waaw. mi ngi noonu bul ñu jox la ko euh, comme que da ngaa sori waaw waaye nag Ablaye da ngaa waroon wax rek ne maa ngi am ku ma yónnee am nga fi mbokk yi it nga may ko ko ah, nga dem ko demal TFM ah waroon ngaa def loolu yow tamit. fexe nga ba ñàkk loolu rek ah Abdoulaye Sambo ca Dagana sama ministre Mouhamadul Mokhtar Cissé mu baax mi moom itam xam nga Dagana la dëkk maa ngi nuyu waa Dagana yëpp moo ma njëkk a yóbbu Dagana euh, ñaanal ko yàlla ko yàlla gën a barkeel nuyu waa Dagana soxna Aïda Maal madame Cissé moom itam maa ngi koy nuyu euh, nuyu waa yëpp euh, ñaanal leen yàlla na yàlla yokku leen dëgëral Abdou Aziz Wele ma nga Dagana sama xarit boobule Euh, ñaa sama tijaani jaak ñoom ñëpp ña nga dagana waa dagana ñoom soxna Zeynab euh, sama jigéen yooyu la soppi Seydina Muhammad yooyu la ca dagana sama jigéen yooyu ma doon conférence al maa ngi nuyu waa dagana yëpp yëpp am na ku ne ci bi ngeen woote mi ngi noonu mi ngi noonu am nañu mbégte euh, bu ko defee nag sëriñ bi Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib convention bi le 4 octobre lay doon ak le 5 octobre salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si nu ngi lay nuyu allo allo wàññil télé bi wàññil télé bi. wàññil télé wàññil télé. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi delloo ziar. jërëjëf tur bi na la. tur bi dama koy leb nag ba beneen. ah lu tax nga koy leb. <laughs> dama koy leb ba beneen rek. foo wootee nii. maa ngi wootee HLM. HLM ngay wootee. waaw. Eh, bisimilah. allo émission bi ñu ngi koy lool. jërëjëf jërëjëf. dinañu ziar si àjjuma ji. jërëjëf soxna si. bëggoon participer si jeu bi rek. de 12h de 12h de. ah. 12h 12h 12h. allo. ma ne 12h 12h 12h de 12h. waaw waaw. waaw 12h 12h. émission sa ngay woote bii 12h de. ah. ma ne 12h lii 12h 12h. non toujours mais si émission bi laa bëgg a participer si neexal. waaw kay da ngay wax loolu émission siire bii nga naan sa yow tamit mere naa la trop. yaa ngi ne na sa ah, tur bu ma mere bu ma mere non dama juum ci kàddu gi rek. waaw kay du zë xam nga l'islam moom nga ne boo nee zë da may dugal. te man du ma zë ma zë de. dégg nga. léegi may naa la juróomi junni ñu ngi la bul coupé ñu jox la ko dégg nga. ah may naa la juróomi junni. may nga ma juróomi junni. waaw bul coupé ñu la koy jox léegi. waa dama la ko may dégg nga waa télé bi ñoo la ko may ñooy bégal seen i téléspectateur ak seen i soppe waaye du zë dégg nga du zë waaw. jërëjëf mbokk mi noonu am nañu mbégte ñaanal ñëpp ndokkeel ñëpp ñaanal borom bi subhanahu wa taala yàlla defar sunu mbiri àddina ñaan yàlla mu defar sunu mbiri alaxira euh, gërëm soppe Seydina Muhammad yi nga xam ne ñoo safoo émission bu mag bii di siira ñaanal leen yàlla defar euh, sunu lépp ñaan tabaski bii ñu dëkkmal euh, kenn ku ci nekk na nga ci def loo mën yonent bi alayhi salaatu wasalaam rayoon na ñaari xar benn xar bi dafa ni sama xeet wi nga xam ni benn bi man maa ko man man yonent bi beneen bi mooy sama xeet wi nga xam ni amuñu tabaski ñoom laa ci kon boo amul bul leb boo amul bul doyadil sa bopp boo amul boo amul bul jaay sa ngor kon mbokk yi nañu bàyyi xel bis la boo xam ni euh, benn fan lay doon mu weesu bul ci togg loo xam ni mënuloo ko jigéen ñi maa ngi leen di digal euh, ngeen ngeen bañ a sonal seen i borom kër yi nga xam ni amuñu euh, xar mu ñu leen indil ndirk waaye na leen doy sa jëkkër bu amee xar xaru juróomi junni na la doy bu amee xar bu amul xar nga jënd bëy waaw bu amee bëy bu ñëwee na la doy xam ni àdduna bi jeexagul xam ni yàlla mooy namee noonu ci doomu aadama euh, sa jëkkër bu la jëndalul xottilul xottilul xale yi bu kenn mer xam ni noonu la ko yàlla bindee amoon na yéene kon ngeen góorgóorlu lu baax a baax tabaski bi kenn ku ne na def li nga mën salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum allo allo dem na kooku dem na mbokk mii noonu kon euh, tabaski baa ngoog dëkk mal si na muy euh, euh, bés bi nga xam ni feetu jullit ñëpp la kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ni am nañu lu ñu tabaskee tey jullit nañu rey am na jigéen ñoo xam ne bu seen jënd jëkkër jëndee xar rek ñoom pare nañ ci te ñoom dañoo war a tabaski tabaski kuy jullit boo ko mën da nga ko war a def salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. mi ngi noonu kooku xam naa fi mu nekk moo neexul euh, ñu ngi doon xaar ñëpp waaye euh, defe naa waxtu wi jot na de ah waxtu wi jot na li ma fi yor nag bëggoon naa may lépp ba mu jeex ah bëggoon naa may lépp ba mu jeex mi ngi nii xam nga tis yaa ngi nii des na xaalis baa ngi nii tegu nii ah dëgg yàlla or baa ngi nii ah ñi nga xam ne nag duggunu ñoom tamit waaye ñu ngi composé ñoom itam daañu jël seen numéro nga xam ni ñoom la ñuy xool génn ci euh, kenn mbaa njaar baa ba fukki nit euh, bu ko defee nag mooy ñi nga xam ne ñoom la ñoo jox or bi kon ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala neexalee ko téléspectateurs yi safoo télévision Futur Média waa TFM dañu wax ni ñoom bu nu sañoon euh, kër gu nekk daañu fa jugg jox la suukaru koor kër gu ne daañu fa dugg jox la loo tabaskee kër gu nekk daañu fa jublu euh, wan la mbégte bi nga xam ni am nga ko ci groupe Futur Média mi ngi muy ci rajo bi muy ci télévision bi muy ci site bi muy ci euh, sunu rajo yëpp laay wax sax euh, rawatina télévision bi nag rawatina émission bu mag bii di siira cofeel gi ngeen am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkee am na ku ne ci ligne bi rek kenn mu daal koy jël daal di jaaree foofa Adja Awaka nu ngi koy nuyu sama yaay joojule ma nga ca Sacré-Cœur Adja Aïda yaay taalibe yi koy nuyu ma nga Mermoz Adja Fatou Ka ma nga Malika soppay Seydina Mouhamed boobule salaamaaleykum allo salaamaaleykum wàññil télé bi télé bi wàññil allo allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum Mbaan ma wàññil télé bi télé bi. wàññi wàññi télé bi waaw wàññi naa sax. waa kay bisimilah bisimilah. allo. allo bisimilah bisimilah sëriñ bi nu lay nuyu. bisimilah ñu ngi ziar. bi naka la. ah Mouhamed Mbaye. Mouhamed fooy wootee nii. Pikine laay woote. waa kay Mbaye bisimilah bisimilah. ziar ñoo ngi ziar de kontaan bu baax émission bi. jërëjëf Mbaye jërëjëf. naka waa Pikine yëpp. ñoo ngi ci jàmm ñoo bu baax. léegi Mouhamed may naa la disi. waaw may naa la saaku soble. merci ah, merci ak sa diwlin. Ah, ak meew. nga. Euh, léegi bul coupé yeneen yi ci gaa yi teg ñoom lañ la woo léegi wax la ko bu soobee yàlla. kontaan naa kontaan naa trop. waaw bul coupé bul coupé jël sa numéro ah bul coupé ñu ngi woo. bul coupé ngi noonu. Euh, Sidi Jamil si bu maam As Moussa moo newoon ci ligne bi euh, moo newoon ci régie bi euh, Cheikh Mat Tidiane Cheikh nu mu santati sax Cheikh Cheikh sama Abdou Aziz Fall Abdou Cheikh Abdoul Aziz Fall Moulaye Abdoul Aziz Fall moo ne ci régie bi ah am Fall am ak jogamaay jogamaay jogamaay boo déggee way boobu Youssou Ndour naan jogamaay yee moom lay way moom jogamaay sama xarit la sama soppe la alxaaji Pape Fall bu télévision Futurs Médias caméraman bu mag boobule moo ne ci caméra bi euh, alxaaji Pape Fall mu Cheikh Abdourahmane Ndaw alxaaji Pape Fall mu Cheikh Abdourahmane Ndaw alkarim moom itam ah soxna Kumba ñoom tamit ñoo newoon ci régie bi ak soxna Hawa ñu koy wax Eva ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla barkeel leen euh, Seydi Jamil bu maam As bu Seydi Jamil mu Serigne Babacar mu Seydil Hadji Malick ma nga ca régie ba Apulaay Alassane ak Séni Lay Maxtaar ñu ngi leen di ndokkeel Serigne Djili Niang bëggoon nañu nag mu dugg euh, bëggoon naaw ñu wool ma ko nag bu fekkee mën nga ma may 5 minutes ah may ne ma 5 minutes rek wool ma Djili Aziz Aziz dama waxoon Djili ne ko ñu ngi lay woo dimbal leen ma rek maa ko waxoon de maa leen ko ñaan ci darajee rasulullahi may leen ma 5 minutes ngeen wool ma sëñ Djili Niang wala 3 minutes rek 3 minutes numéro Djili waaw numéro sëñ Djili Niang ah maa ngi euh, Sonacoumba maye naa maye naa de waaye nag sama. déedéet euh, sama téléspectateur yi gërëm ñëpp ñu wol ma sëñ jili incha allahu taala bu ko defee moom itam ma nga noonu aéroport jëm baytil al haram moom sëriñ jili mu wax ma rek naka la ko pèlerin yi waajalee foofu ca aéroport euh, xam naa ñoom incha allahu taala léegi nu war a départ euh, bu ko defee moom itam nu wax ak moom tuuti Euh, incha allahu taala ak télévision Futur Média lay xew ca Makkatal Mukarram moo xam euh, lay xew ca euh, Arafa la daañu def ak yéen en direct ci Arafa incha allahu taala lay xew ca Muna daañu leen ko wax ca Musdalifa daañu leen ko wax waaye incha allahu taala bu ñu demee ca Madinatul Munawwara daañu leen wan yonent bi alayhi salatu wasalaam foofa nga xam ni ku lu fa ne moo xam moo xam Uhud la fa la Hamza ibn Abdul Muttalib tëdd nga xam ni foofa 70 généraux fa la ñu daanu. ca xubaa masjidu xubaa fa la sidina Muhammad njëkk a julli juma masjidu xiblatayni fa la ko euh, julli euh, fa la ñu wëlbatee ne ko wëlbatil sa xar kanam jëmale ko baytil al xaraam ci julli tàkkusaanam nga ñii di julli tisbaar moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yooyu yëpp bu ñu demee ca makkatal mukaram daañu leen ko filmeel daañu leen ko waxtaanal euh, dara dara du leen ci umpu insha allahu taala mbokk yi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla defar sunu mbiri àddina ñaan yàlla mu defar sunu mbiri àllaaxira ñaan yàlla musal nu ci musiba ak balaa kasara gàtt fan deegu ñaaw deew mbetteel gàtt wut sa gàcce yàlla nañ ci yàlla musal ci darajey sidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Aziz bu fekkee jotuñu sa njiili ma tàggatoo rek mi ngi noonu sëñ euh, moom itam xam naa ñoom itam ña nga ca wàccaaya ña nga ca euh, aéroport noonu ba war a départ jëm baytil al haram nuyu sëriñ Abdou Samad Mbakke mu sëriñ Suayb mu Cheikhul Xadim sunu sëriñ sunu xarit soxna Yaasin Ndooy nu koy soxna Umul Xayri si da nu koy nuyu sama yaay joojule ziar ko Baye Alhaji Salih An ma nga Cees yàgg fi lool te wér Adja Sise Adja Nday Diop Adja Nday ngoom sama yaay yooyu le sama yaay Jaafar Seck ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu nu ngi leen di ndokkeel sama yaay Adja Ndaak Ñang soppi Sidina Mohamed boobu lee mi ngi fii ci yoof Adja Ndaak Ñang maa koy nuyu maa koy ndokkeel maa koy ziyaara bu baax a baax a baax ajaratu Ndaak Ñang soppi Sidina Mohamed boobu lee ajaratu Ndey Xadi Juuf bala daaw góor mbaay ca mbaaw nu koy nuyu nu leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokku leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñi demagul màkka ni màkka moom woote borom bi subhanahu wa taala la maa ngi ñaanal nag sama yaay yi ma bëggoon lool lool am na ci ñoo xam ne jotuñu maa gis am na ñu ma gis ba noppi ñoom ñëpp yal na yokk seeni leer sama soppe yooyu nga xam ni dama am na ci koo xam ni euh, doomam moo ma woo ne ma sama yaay ba nekk sukuraat la ma wax mooy yéen dinaa dee rek te du ma gis mi ngi noonu waaye yàlla naa dajeek moom ca kanamu rasulullahi yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla kawel aljanaam ngir cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci ñun ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn kenn kenn amul seen fay kenn amul seen fay yàlla na salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi nu lay nuyu sa njiili. <laughs> alaaji kumba sa njiili yaa ngi ci wàcca yaa ngi aéroport. aan waaw ñu ngi aéroport fi ñu toll nii. waa sa njiili pèlerin yi foofu ak wàccaay wi lan nga gis ci ñoom. waaw gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen. jërëjëf ñang sant yàlla bu baax a baax a baax. Mm-hmm. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ndokkeel leen bu baax. Mm-hmm. ci weer wi nga xam ni mi ngi tàggoo tey ñun fii di seenu bu jëkk mhm, mhm. ñu war a tàbbi nag alaaji weer wu màgg mhm. weer wi nga xam ni fukki fan yi yu jëkk yi ñoo gën ci at mi wallahi ñu soobu ci ayaami mahdudaat yi tabaski am ci biir taxawaayu arafa am ci biir wallahi ñu ci mottali suñu juróomeelu ponk lislaam di la ci ziar di la ci ndokkeel bu baax. jërëjëf jërëjëf ñang xam naa yow it yaa ngi waaj waaye tey jii boo ñëwee aéroport. Eh, eh, da nga naan rek eh, Sénégal. ndeysaan ñëpp rek bu doon seen sago kenn du fi des. kenn du des kenn du des wallaahi. ndax ujaaj bu ñu ñëw rek. Mhm. nin lay gunge. wallaahi ak yéene gi ñu ciy am. Mhm. ak ñaan yi ñuy ñaan rek. moo lay mhm. xamal ne daal ñun daal nañu ñaan rek. quota Sénégal di gën a yokk ren jii dem na ci ba douze mille yu teg. allahu akbar waaye ñu ngi ñaan mujjee dem quinze mille ba dem ba ay vingt mille ba am mu nekk rek amin amin lu bare di dem di mootali ci seen juróomeelu ponk lislaam mm-hmm. di ci ndokkeel jullit yëpp nag mm-hmm. waaye alaaji den gannaaw bu ma sante waaw yàlla bu baax a baax mm-hmm. soo sama demu ren yàlla ko jaarale sunu sëriñ di sa xarit sama xarit sama soppe sëñ Abdou Samad ibnu Cheikh Abo Madiame Chouaibou ibnu Cheikh il Xadim waaw ngeen mu nekk sa soppe lool sama lépp sama lépp sama lépp la lii bokkoon ngeen ko def ren ji yàlla wërsëgale na loolu ren ñu war a ànd ma ma war a bokkaat ak moom jàkkaarloo ak moom hôtel waaw ma nga ma yow kañ yaakaar naa ni <laughs> incha allah sëñ bi daal sëñ jili sëñ bi daal nee ko ni ma ko nammee waaw gisuma ko Sénégal maa ngi koy kar màkka rek màkka moom incha allah moom bis bu ne rek bis bu ne bis bu ne wallaay ñi ngi ànd soxna soo xam ni. ndeysaan xadimatul alxuraan la. ndeysaan est-ce que. muy soxna maam ma Mbacke moom sëñ Chouaïbou. est-ce que Mbacke Balla nga xam ni yitteem yëpp alxuraan def mm. alxuraan ci doo doomu jullit yi la. nuyul nu ko nuyul nu ko naka waajuram wa defee woon. nuyul nu ko nuyul ko ñang ndax soxna maam ami moom Cheikh Mouhamadou Mourtada góor yàlla. waaw saan wallaay ànd ak kilifa yu bare sañ sañ sañ yi waaye yow sa njiili yow faaw faaw ñu lay yóbbu Makka faaw ñu lay teral ngir sa mbaax ngir sa yiw ngir sa tabe waaye ngir sa yéene ñëpp jàmm. alhamdulilah kon nu ngi lay ñaanal yàlla yóbbu la ci jàmm nga àgg ci jàmm. amiin amiin ànd naag yow màkk ñu bokk benn néeg maak yow. wallaay wallaay nga xam sag tedd nga xam sag yiw xam sag mbaax. ya ya yaakamte naa ñu ànd nag. incha allah dinañ àndaat. <laughs> nga boole ma ci VIP yi ngay yi ngay yi may yóbbu xanaa. <laughs> <laughs> ah yow mi ngi noonu de jeex na jeex na. waaw yow xam naa màkk la ñuy gisee. la allah màkk màkk la ñuy daje ñun màkk la ñuy. ndax yéen euh, bu ngeen fi jógee gannaaw suba da ngeen di def direct màkk. direct màkk bu aj gi jeexee nag la ñuy seeti sama. waa ji ñu daaw bu ñu wàññi ko rek daal di jaar Madina. jaar jaar ca Madinatul Munawwara. ñu ngi lay seenu màkk ñi ngi ñaan yàlla indi la ci jàmm. amiin ñang amiin ñang. sa taxawaay ci diine ji. alhamdulilah. sa cofeel ci Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam ànd nañu ni nga ko waxee mhm. am nanu di julli ci jàkkaam jooju doo mën a téye sa bopp maa ngi fàttaliku fajar joo xam ni mhm. keroog daanaka xamuñu nu ñu ñibbee ndeysaan ndeysaan ndax suñu xel nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye alxuraan gi nga xam ni yaa ngi ko fay dégg mhm. ku yàlla defal tawféex mhm. ba alxuraan waaw sunu borom ki mu ko doon wàcc ci moom waaw nga toog nekk ci bërëb boo xam ne yaa ngi jàkkaarloog bërëb bi xam ne mi ngi lay yëpp boo ko ne asalaamaaleykum yaa rasulillahi sallallahu alayhi mu tontu la tontu. fayal la boppam tudd ndey tudd sa la boppam. billaahi. waaye gis naa. Mhm. Euh, cofeel googu. man lu ma lu ma mën a seere la. jërëjëf ñang lu ma mën a seere la lu du lu ñuy wax nii rek. ndax rangooñ dafa sore ci jëmmi doomu aadama. wallaahi ñang wallaahi. waaw kon lu koy génne rek du caaxaan. mais waa Rési nag waa Rési ñoom Amak ñoom euh, Aziz ñoom euh, Jamil ñoom ñëpp nee nañ nga ñaanal leen. ñoom ñëpp laay woo incha allah ñoom ñëpp bu ma yeggee dama leen di ak ak ah, ah, nee na faaleen bi borom gerte gi nee na bu ko fàtte <laughs> mi noonu sëñ Jili Ñang bu ko defee réalisation bi dana gën a tegu ci yoon. amiin sëñ Jili kon yoonu jàmm. mi bu baax. wallaay mi ngi lay nuyu mi ngi lay nuyu. kon daal mi ngi noonu daal na ñëpp daal ñaanal sëñ Abdou Samane moom sëñ Choybu. jërëjëf ak njaboot sëñ Tuubaa gi def na moom ak jullit yi def na moom yëpp di jël ay mbooloo. mottali ñu fexe ba ñu mottali seen juróomeelu ponk l'islam amiin amiin am waaye ñu mel na yéen itam ñu mel na yéen nga xam ne yéen ay encadré ujaaj yi mhm, mhm. di leen taxawu ba ñu mën a mottali seen ponk boobu itam mhm. loolu itam lu am solo la yal leen yàlla doolee dëgëral bu baax a yàlla dëgëral sunu kër gi ndax bare na teraanga yu ñuy defal alaaji waaw bu ñu koy defal groupe Futurs Médias wallahi wallahi kenn amul seen fay boo ba tax na président Youssou Ndour kala yóbbu woon yóbbu ma Cheikh mhm. Amar duñ ko fàtte mukk Cheikh wallahi wallahi Cheikh gis nga daaw ñu am tawfeex moom njëkk woon ma ngoog sallallahu wa sallam yàlla yàlla fay ko man nii 2014 gis la yóbbu woon gis nga daaw teraange gi ñu yàlla defal wallaay te bu ñu ko defalee rek sëñ Tuubaa ma ci ñi su nekk amoo fayam mm-hmm. ubbee buntu àjjana yaay jëkk dugg wallahi wallahi wallahi ndax ji sallallahu alayhi wa sallam moo ni ak maa la ko wax dara du payam ilal janna wallahi ilal janna maa la ko wax wallahi ñang jazakumullahu dégg nañu kon maa ngi lay seenu am nañu mbégte kon maa ngi ñëw léegi fekk la ca makkatal mukaram ala jiili insha allah insha allah ma sëriñ bi incha allah jërëjëf mi ngi noonu Serigne Djili ñang mu baax mi Serigne Djili ñang mu yaru mi mi ngi noonu départ war a jéem tey ji incha allahu taala yàlla nañu àgg ak jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm ànd euh, Euh, Abdou Samad bu Sëriñ Suhayb bu mu Cheikhil Khadim radiyallahu anhu ak délégation mag boobu nga xam ne ñoom ñëpp moo leen di yóbbu kon Sëriñ Abdou Samad yokk ay teraangaam ay xéewalam yàlla dool di ko wér Sëriñ Sidi Ahmed si bu Seydi Jamil ci jëppal euh, nu ngi koy nuyu Sëriñ Sidi Ahmed Ahmada moom itam nu ngi koy nuyu Sëriñ Mansour Jamil ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, ñaanal leen kenn amul seen fay waaye di nuyu sama xarit Omar Diouf soppay Seydina Mohamed boobule Omar Diouf mu bëgg yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi koy nuyu ca trésor sidna Omar kenn amul fayam lu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yokku dëgëral sama rak ci alaaj ngañ bàyyi nuyu naa la Adam Badiane soppay Seydina Mohamed boobule Alioune mbay sama comédien bu mag bi soxna Minti Fall ni ko ñaanal moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral euh, ñaan mboolem ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na sunu cofeel gën a dolli ko ci moom sama ndijaay tonton Muniru Ka sama ndijaay Muniru Ka maa ngi koy nuyu ma nga ca Detroit ca Amérique nuyu waa Detroit ba ma fa demee xam nga ne teraanga gune defal nanu ma ko ñoom ak waa Cincinnati waa Philadelphie soxna Yuma Aïcha Ba maa ngi leen di ñaanal waa Washington gépp convention bi la 4 octobre lay doon la 5 octobre ci ndigalu xalifa bi ci njiital sëñ Sidi Ahmed Mahamadul Habib soxna ma jigéen nu ngi koy nuyu am nañu mbégte yàlla na ñëpp am jàmm xam naa ba ñu del siwaat ak jàmm ba fan yëla di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu إلى الهدى إلى الهدى